livre bu njëkk indi polémique moo nekk euh, bi nga xam ne sur le jeune sénégalais Mouhamed Bougar Sarr 32 ans mu am gagné prix euh, Goncourt mais dafa mel ni comme mu ngi wéy di am ay raaya parce que kii di président de la république euh, Macky Sall aussi taggal tabal kii na ko aussi takkal na ko aussi raaya mais aussi en même temps dafa mel ni doomu ndayam aussi Diary Sow moom tamit elle veut pas se faire oublier ban lecture ngay def par rapport à tous ces livres ak tamit polémique yi en tant qu'écrivain non en tant que écrivain écrivain moom titre la boo xamante ni sañu ko adossé bàyyi ma nekk auteur rek mais euh, jàngat bu ñu siy def euh, bon lenn kese laa si trouvé dommage du ma dugg ci le le fond du livre parce que déjà comme ni mu ko waxee ci yeneen occasion mhm. jotuma liir bu jaare sow jotuma lire bu bu bu bu monsieur Sarr mhm. donc duma dugg ci contenu maintenant li ma ci mën a wax mooy en tant que sénégalais lan moo tax ñuy xaar ba reconnaissance du jóge ci bitim ci bitim euh, ci bitim réew ñun ñu doogay les reconnaître parce que man tey buñ ma nuwee njaab dafa dafa am xel macha allah dafa am dafa am dafa xarañ man ci sama wàll boobu maa koy njëkk jox raaye mais li may gêner en fait mooy le fait que ñuy xaar bitim réew ñu jox la raaye ñu doogalee distinguer dans ce pays war nañu mën a xool ñi nga xamante ni ay talent nañu ñi nga xamante ni am nañu xel beeg xarañte bi ñu leen di fësal di leen gën a jox seen gëdd bi wax mais bu ñu bàyyee ba bitim réew ñu jox leen reconnaissance rek ñun ñu dogal leen koy jox dafay mel ni dañuy nekk di topp euh, li ñuy jox comme modèle comme ñoom aussi dafa am ni ñuy joxee seen raaya ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bitim réew occidentaux yi dañ am benn model de société bu ñuy propose africain mm-hmm. ñoom ñu ngi ci seen logique depuis le départ mooy fexe ba ñoom li ñu tuddee woon civilisé fexe ba ñun ñi nga xamante ni ñoom dañ jàpp ni continent acculture nañu amuñu culture amuñu histoire ñoom ñu ñëw jox ñu civilisation jox ñu culture jox ñu histoire léegi nag peut-être procédé yi dina changé peut-être dootuñu ñëw diñuy indi ay esclavage dinañ indi ay kii mais dinañ jël suñu ñoo xamante ne dañuy ñëw ni Pape Makhtar mais en réalité duñu parce que am na beneen modèle de société boo xamante ne dañu koy commencé jaay donc moo tax ma ni nañu def attention ci li nga xamante ni moom nañ ñuy proposé comme société yaakaar naa ni euh, fan yi ñu ngi wax ay waxu taux de divorce ak yooyu yëpp parce que aussi dañu bàyyi suñu ànd day am yoo xamante ni moo taxoon ñu doon caractériser li nga xamante mooy société sénégalaise mooy suñu culture malheureusement dañuy teg suñu culture de coté commencé dem ci modernité modernité te ses conséquences modernité bi nag boo ci duggee da nga ciy fekk euh, li nga xamante ni ay ay inconvénients la mm-hmm. ci inconvénients yi nag euh, fàtte sa bopp ci la bokk te yaakaar naa ne réew yu bëri bu mel ni Allemagne ba ñu jugee ci seen période yu difficile yi dafa am lu ñu laal ñu tuddee ko fierté nationale ñun nag amuñu fierté nationale parce que déjà xamuñu suñu bopp suñu histoire ñu ko jàngal te yaakaar naa ni loolu moo waroon doon tey jii euh, li nga xamante ni moom mooy gëdd bépp sénégalais ñiy jàngale histoire di fësal histoire mais aussi di fexe di valoriser ñi nga xamante ni ci Sénégal bii nañu nekk am na aussi quelque part lu ñu mën tuddee benn genre discrimination ñiy jàng nasaraan wala ñiy bind nasaraan dañuy jàpp ñu ëpp xel ñi nga xamante ne ñuy def yeneen affaire mhm. gis nañ fi am na ay sénégalais yoo xamante ni dem nañ si ay concours international di tari alxuraani karim jël fa li nga xamante ne mooy raaya yi mais pourtant amuñu distinction yi nga xamante ne dañ jox mais bu nekkee beneen modèle bi nga xamante ne mooy bu ma doon wax rek modèle occidental bi nga xamante dañu koy jéem imposé bu ñëwee dañ koy jox distinction yi nga xamante ne mooy li wax dafa dafa nekk lu dommage mais na yi gën a vigilant ah tout à fait mais pas Matar vous en tant que écrivain auteur comme ñi ngi koy euh, bañ a waxee moi je dis que vous êtes un bon écrivain euh, euh, nga xam ne jox neen ko kii di Mouhamed Sarr par rapport ak thématique pratique yi nga xam ne moom lay développé est-ce que du ñu euh, réduire euh, l'homme noir si tubaab bi fu mu ko bàyyi woon dimension coloniale beeg euh, racisme est-ce que du ñu tombé aussi si même piège aussi bi nga xam ne blanc yi dañoo jàpp ne lépp lu noir def rek c'est quelque chose d'exceptionnel en tant qu'homme de lettres waaw mais xam nga xam nga mooy li ma la wax léegi cest dire bu nekkee surtout sax ni nga xamante ni da ko suscité comme intérêt ci saa si. Mhm. dafay mel ni que ñoom ñoom ñoo ñuy wan modèle yu baax yi cest ñoom ñooy toog du ñu naan Pape xoolal lii mooy modèle bu baax bi kii mën na def lii kii mën na def lii loolu dafay dafay nekk lu problématique parce que tey jii man euh, yaakaar naa ni bu nekkee niñ koy waxee noonu la amee bu nekkee sénégalais yi am na ñoo xamante ni seen xarañte euh, yàgg na fi nga xamante ni fa la toll mais dañu leen war a fësal ici au Sénégal waruñu xaar ci bitim réew ñu leen di jox raay wala distinction ñun ñu si doogay wëlbati ko di si topp di naan aay na aay na aay na wala mën na mën na mën n débat yooyu nag dafa am loo xamante ni da ko da koy soulever mooy complexe d'infériorité bi nga xamante si fexe na ba mu nekk si ñun tey jii boo waxee sax ci nit loo xamante ni euh, de façon critique la ñun la non no non da ko danga ko eenal danga ko bañ danga ko siisa sa ay mhm. wax yoo xamante ni dafay dafay dafay xaw a compliqué mais je pense que nii nañu xoolaat ba bu baax daal nan nañuy fexe ba yee si ñun fierté nationale di fexe di fësal aussi modèle sénégalais bi nga xamante ni ñun moom nañu soxla gën koo mën a fësal parce que sénégale boobu dafa am ay valeur njaam mhm. sénégalais boobu dafa ni non à l'homosexualité dafa ni dafa am yoo xamante ni xalaatul di ko jël di ko accaparer di ko def li nga xamante ni mooy culture te aussi gis nga nasaraan si dafa jàpp que ni ñaari mbir moo nekkoon li nga xamante moo objectif am te tey jii ni ci loolu la nekk di wéy képp ki nga xamante ne danga nga assimiler maanaam politique boobu ñuy wax képp ki nga xamante ni da nga jël seen culture def acculturation assimilationniste jël li nga xamante ni mooy seen culture nga moomeel def ko sa moomeel bopp mais ñoom dañ lay fësal dañ lay jàppale pour que genre pamartar yi nga xamante ne dañu nekk feneen ñun leen ñii ngeen war a que ñii dañu renier seen histoire dañu fàtte seen lépp ñëw doon modèle français bi wala modèle du du du du du en tout cas de de de l'homme moderne te loolu yaakaar naa ni ñun ñoo ko war a gën a mën a bañ bu baax war nañ daal xoolaat bu baax ban sénégalais wala l'homme sénégalais nga xamante ni moom mooy juddu fii nag ay ay ay ay ay mois wala ay années la war a doon kan moo war a doon modèle am ñan a doon est dañ leen war a présenter benn modèle boo xamante ni bitim réew la dañ ko fa defaree teg ko fi indi ñu ko diñ ko présenter wala benn modèle boo xamante ni ici la au Sénégal bi jàng ci langue nationale yi mais aussi di fësal li nga xamante mooy langue nationale. un livre de 400 pages par Matar ñun sénégalais ñu jël si extrait yoo xam ne rek kii di euh, Bouga Sarr dafa utiliser ay personnages euh, fictifs ay personnages yoo xam ne mun nañu wax ne euh, moom moo leen di joué loo existé wul di wax par rapport ak euh, lu ñuy tuddee ñun entre guillemets sexualité est-ce que tamit débat boobu au Sénégal polémique bu mu fi soulever aussi Pape Matar est-ce que c'est pas aussi assez exagéré Pape Matar waaw mais xam que l'écrivain il est libre waaw no non lool lool ay wax la c'est-à-dire gis nga liberté bu nekk dafa am dafa am dafa am lu ko tënk lu ko tënk dafa am yoo xamante ni c'est des lois écrites ak des lois non écrites ñun suñu loi parmi suñu loi yi nga xamante ne ay lois non écrites la mooy suñu ay valeurs en fait tey jii njàpp am na noo xamante ni sañoo ko def parce que am na ci kër guñ la yaree am na ci gox bu ñu la yare am na aussi ci benn façon buñ la yaree façon boobu tey jii moo tax ba yu bëri da nga koy da nga koy da nga koy tere ko bëggoon def a def parce que da ngay ni lii boo defee de peut-être di nga teg sa waa kër wala ainsi donc je je euh, je dis par là que ni dafa am ñun li nga xamante ni mooy suñu propre identité moo tax ba tey jii moo ñu individualiser en fait bu ñu ko bàyyee dem ci leneen dañuy nekk ñi nga xamante ni dañuy fàtte seen bopp te nit bu amul culture bu amul histoire nekkatul nit. Mhm. yaat bàyyi ma yéen a yem donc je pense que ni. bu sénégalais yi suscité yenn wala bu ñuy soulever yenn débat yi par rapport surtout à l'homosexualité mais c'est de bonne guerre parce que aussi. di fàttali gis nga président Macky Sall ba muy jox raaya ki nga xamante ne mooy sénégalais bi tegaale nañ si benn ministre bu nekk euh, France mhm. ministre bu ñu tuddee xaw ma lan de euh, égalité entre hommes et gis nga genre ministre parité xaw ma daal hommes et femmes xaw ma genre affaire yooyu ministre boobu nekk ca France ñëw ci Sénégal ñu koy jox raaya te ministre boobu di def promotion li nga xamante ni mooy égalité entre góor ak jigéen mais ministre boobu noon bu ko joxee raaya rek c'est parce que peut président bi dafa d'accord ci yoon bi nga xamante ni ministre boobu da koo jël te ñoom ñi ñooñ di wax ay waxu égalité homme fa femme ñoom ñoom ñooy wax aussi égalité entre euh, bisexuels yeeg ak yeneen ak yeneen mbiri yi donc je pense que ni nag Sénégal yi gën a def attention ci par rapport ak li ñuy bëgg présenter ak ñi ngi ñu bëgg wan comme modèle te yaakaar naa ne bu nekkee ay rang ak ay distinction am na ay Sénégalais yu gën a méritant yu fi nekk ñoo xamante ni waxuma ni mérité wu ko de mais am na ñeneen aussi ñoo xamante ni am nañu mérite comme moom ñu ñu war a gën a fësal parce que ñooñu aussi yaakaar naa ci seen wàll wane nañ xarañte mais buñ ñu imposer complexe bi nga xamante ne mooy langue française la gëm loolu ñu lépp li nga xamante ni dañ koy defee ci langue française dafay am benn benn benn genre Euh, dafay nekk am benn ascendance ci yeneen yi nga xamante ni yeneen langue la parce que loolu bu ñu ko gëmloo dañuy wax lu leen neex am na ñi ngi fiy nekk ci Sénégal di bind ay téere ci arabe ñii di def ay yeneen ak yeneen est ce que ñooñu tey jii jotul jéem fexe ba ñooñu gën leen fësal ba Pape dina am yeneen modèle yoo xamante ni da leen di roy wala sax ñii di bind ci mandeng ñii di bind ci pël ñii di bind ci soose suñu langue yeeg suñu culture nañ a fësal te bàyyi di mooy langue jàmm ak culture jàng ko fësal des intellectuels et des universitaires mais par rapport ak réforme yi nga xam ne moom leen war a opérer suñu système éducatif ñu ngi topp ba tey l'école Jules Ferry d'où ma question bu ñu toogee Sénégal ñun en tant que jeune ou bien en tant que sénégalais di critiquer à chaque fois suñu mbokk yi nga xam ne ils sont euh, dans la diaspora di góorgóorlu tant bien que mal pour rek mën a wane seen ay xaranteef ñun dañu jooy wàllum fuite des des cerveaux euh, ministre bi ci nekkoon premier ministre euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne mu ngi wax ne carrément euh, Sénégal dañoo loon am coutume di brûler suñu ay stars tey est-ce que yaakaaroo ne voilà violence bi nga xam ne ñenn ci yi ñu ngi koy exercer ci kaw kii di Bougane Sarr dina bokk ci sénégal yi nga xam ne dañoo waroon ñëw service seen dëkk mais préféré dem toog l'Occident pour ne pas être être euh, marginalisés dans la société non je pense pas parce que tey euh, gis nga man je je ne crois pas que dañuy brûler suñu ay star parce que tey boo xoolee euh, am na Sénégal ñoo xamante ni dañ leen fonk ah. tey fu ñu génn ñu ñu teral leen xool ko si ñi nga xamante ni dañuy tagg yonente wala dañuy tagg Serigne Touba wala Alaaji Malick mais fu ñu génn ci télé ay nit jël seen alal jox leen ko. mais est-ce que loolu aussi euh, moom mooy <laughs> bien vrai que voilà on est tous des croyants ku nekk am na si kër diine gi nga bokk mais est-ce que on doit tout simplement se limiter à ça. waaw mais mais xam nga xam nga gis nga déjà rek problème bee ngi nii boo waxee <laughs> religion rek ñu ah non non xam nga diine bi nañ ko tegee ne après ñu indi li nga xamante ne mooy parce que en fait dañu gëmloo que ni dañu war am mooy seen soi-disant laïcité bu ñuy jéem a théoriser ak yooyu bëgg ko def absence du fait religieux gis nga religion dafa bokk ci société mm-hmm. yàlla dafa ñuy def ñu nekk peuple boo xamante ni 100 pour cent religieux ñii dañu nekk ay jullit ñii nekk ay catholique donc ñun bu ñu fàttee ñun li ñu doon pour ñu nax ñu dafay dafay yomb gis nga man gëmuma ni sénégalais dañuy brûler ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fële ci bitim réew parce que aussi ñoom bu ñu nekkee ci biti réew mais dañuy am benn regard boo xamante ne par rapport sénégalais yi nekk fii ci biir réew mi mhm. parce que ñooñu aussi buñ ñibbisee Sénégal lu ñu lay commencé wax sénégalais yi <laughs> ñoom dañuy génn seen bopp am naa ci ay copains bu ñu ñëwee dañ naan non mu nga wax nga dëgg de yow nekkatoo sénégalais wala bu bay waxtaan ak ñi nga xamante ne tey jii ñi ngi foofu di liggéey wala jàng bu ñu lay wax dañu la naan non mais yaa sénégalais yi de waa Sénégal de dañuy génn seen bopp Sénégal mais ñu aussi de la même façon parfois aussi dañu leen di génn Sénégal ñu tamit. loolu dafa nekk yoo xamante ni lu normal la mais je pense que ni li ñu waxoon gën a fexe mooy nañu fexe ba sénégalais bi bu fépp fu mu nekk ci bitim réew mais ñu bañ a bàyyi ba waa bitim réew. di ko jël di ko teg fedd ñu ñu si doog di topp. Mhm. bu nekkee am nañu xarañte bi ñuy wax. mais ñun nañu commencé jox leen reconnaissance bi wax mhm. njàpp aay na mën na mais du bàyyi ba TV5 ñëw doogaay wax ci njàpp ma doogay wëlbatiku di naan damay damay intéressé wu si njàpp mais ñaata yoon lañ daan am na sax ay jeunes rappeurs yoo xamante ni il a fallu que seen seen seen seen kii yu ñu doon def ñu reprendre ko ci yenn yenn yenn yenn yenn villes yeeg yenn dëkk yi mais nit ñi commencé dem di intéressé wu si ñoon alors que ni yàgg ñuy fëgg peut-être ci porte yu bëri gars yi tëjal leen ko donc nañuy gën a ubbeeku xool ni talent dafay am ñuy jàppale ñi nga xamante ni ils sont talentueux. Mhm. fësal leen mais aussi ñu def attention ci ñenn ñuy fësal. Mhm. talent bi baax na trop mais na nga am ay valeur valeur yi aussi dafa am solo te valeurs yooyu noonu dañ si war a tenir bu baax a baax. tout à fait après euh, Bougane Sarr Diary Sow euh, <laughs> deux fois meilleure élève du Sénégal Miss euh, mathématique euh, fu mu mujj fu mu mujjee ak sénégalais yi moo nekk je vous emmerde <laughs> waaw mais dégg naa que mu mu rectifier ah rectifier na nee na que waxul ak sénégalais yëpp ñi koy ñu koy traité de pute en tout cas li ma liir ci presse bi loolu laa ci lire ñu koy traité de pute la la la la waxal mais bon xale la xale moom da ngay juum yaakaar naa ni euh, comme rectifier na rek am na ay regret mais je pense que war nañu gën a def attention parce que aussi euh, gis nga euh, beneen mbir bii gën a indi problème yaa ngi wax sànq fuite de cerveau. Mm man ma comprendre ñu organiser ay jongante xool ñi nga xamante ni ñoo dàq jàng ci Sénégal mm-hmm. jël leen amuñu lu ñu leen defal lu dul jël leen yóbbu leen bitim réew te la plupart bu ñu demee bitim réew dootuñu dellu si. loolu day wane rek euh, suñu niveau euh, système éducatif bi euh, Pape Matar. waaw mais xam nga xam nga comme xarañte bi am na fi Sénégal moom yaakaar naa ni kenn du werante ni expertise bi am na fi. Mhm. Sénégal boo demee ci àdduna bi mi Lyon université yu gën a mag ci ci àdduna bi boo fa demee di fa fekk ay professeurs sénégalais donc expertise bee ngi fi. Mhm. mais lan moom maa ngi peut li nga xamante ne mooy volonté étatique. Mhm. ba. fut de cerveau yi nga xamante ni ñu ñoo koy organiser parce que ñoo dem ci njàppite bi nga xamante ni am na compétence ñu jël ko fayal ko bourse d'étude mu dem jàngi ji bitim réew et malheureusement bu demee jàngi foofu ba miin seen culture pour mu dellu si waat Sénégal dafay jafe bu ñëweetee day mel ni étranger parmi les siens pour paraphraser sama sama papa jooju Sidy Lamine Niass mm-hmm. ñaan yàlla euh, suuf sedd ci kaw ci ci kawam mm-hmm. mais pour dire que ni il faut ñu jéem a fexe ba sénégalais yi nga xamante ni dañuy dem bitim réew surtout si ñooñu le plus souvent mosuñu génn sax Dakar. njàpp mhm. booy mosul génn nga xëy suba génn ak autant de liberté boo moytuwul ci libertinage ngay mujj boo moytuwul bu ñu la préparé boo demee doo dellu seet wala booy dellu si jëmm ji mooy dellu si may nit ki changé na mooy li nga xamante ne mooy politique assimilationniste bi nga xamante ne moom laa doon wax sànq dinañ nga fexe gëm loola que ni yow ñi nga bàyyi sa réew dégguñu tubaab ñooñu yaa leen féete kaw parce que dégguñu tubaab mhm. ñi nga bàyyi sa réew. mënuñu làkk tubaab wala mënuñu bind tubaab yaa leen féete kaw parce que mënuñu bind tubaab fàtte ni tubaab langue la nu ko mandak nekkee nu ko joolaa nekkee nu ko séeréer nekkee donc il faut ñu fexe ba même bu nekkee munta bañ a am bii am ñu préparé ñooñu ni leen da ngeen dem jàng ji yem leen si jàng te bu leen dugg ci culture jàmbur bu leen dugg ci civilisation jàmbur fexe leen ba ngeen rester vous-même tout temps dem ngeen jëli ji xam-xam bi nga xamante ne moom mais Pamatar euh, la civilisation bien sax culture dafa nekk loo xam ne lu universel nekkul ne carrément ñun ñoo gën wala ñoo gën a néewle euh, ñoo euh, ñoo gën wala sax ñun ñoo gën am ay ayib par rapport aux versa aussi. waaw non xam nga échange culturel lay xam nga xam boobu loolu ku ko doon théoriser mooy Léopold Sédar Senghor. voilà ko ñaanal yàlla mais enrichissement ouverture Pamatar. moom moo ñu gëm loolu loolu. tey jii demal Chine nga fay waxu en euh, ouverture ak euh, xaw ma lan ak lan rendez-vous du donner et du recevoir ñoom xam lu ñu xam rendez-vous du donner sénégalais boobu ba tey wala Sénégal boobu ba tey dañuy nekk di joxe te recevoir uñu dañuy nekk di di recevoir te joxewuñu dafa am loo xamante ni suñu culture la gis nga boo nuwee ay culture xaw ma lan ak lan ak ba fàtte sa bopp fierté nationale boobu ñuy wax bii tax ba nga am singularité bi parce que boo demee ba mel ni ñëpp yow yaa ñëpp yéen a te pour nga mën a distinguer wu il faut nga am sa singularité singularité boobu mooy tax nga doon individu individu bi nga xamante ne nag mooy lu individuel yi yow kenn gi yow il faut nga xam sa culture xam sa histoire du caagin que yi Sénégal moo gën ci culture yi wala moo gën ci ci histoire yi wala moo gën ci mais na nga xam sa bopp ba boo embrasser beneen culture di nga fa jël li nga xamante ne as tuut la ci lu baax mm-hmm. mais du tere di nga resté Pape bi nga xamante ni moom la sa yaay xam moom la sa papa xam mais boo demee dellu si say doom nga leen di jàngal nasaraan doo leen làqati wolof ñeneen ak ñeneen mais ñaata kër ñoo xamante ni ba ci peut-être sax sama kër seen doom yi duñu làq wolof. tout à fait ñaata ñoo xamante ni dañuy gëm ni que léegi boo duggee ci benn bërëb boo làqul nasaraan duñu jox gëdd gu ba mhm. mais effectivement tey jii am na noo xamante ni noo koy soloo nga dugg ci administration ci benn bureau dañ lay def li nga xamante mooy délit faciès dañ lay xool. peut-être sax ñu minimiser la parce que dañuy jàpp ni kii jàngul mais ki nga xamante ne dafa jàng arab jàngul hmm. wala jàng nasaraan kese moom mooy jàng ci àdduna donc il faut ñu bàyyi caaxaan yi day wut ay model daal man gëm naa ni modèle yooyu buñ ko amul dañuy sonn suñu bopp rek parce que tant xamoo yow yaay kan hmm. parce que gis nga yaanaama ñi ngi si doon jéem a taxaw naan nouveau type de sénégalais ak yooyu yëpp mais tant que ñu fexe ba am li nga xamante ne mooy homme sénégalensis bi ñu ne nii lañ ko bëgg bindee parce que nit ki foog nga am identité bu propre nu ko nasaraan bi amee nu ko ñeneen ñi amee yow foog nga am ko pour nga mën a avancer doo ngay dem na peut-être ci li nga xamante ni mooy ubbeeku bi. mais balaa ngay ubbeeku foog nga am dara ci yow. tout à fait mais mais Diary saw interview bi nga xam ne accordé na ko euh, euh, mu ngi xam ne ne euh, dafa meloon ni comme l'impression elle a été étouffée mel ni comme koo xam ne da nga koo bëggoon rek jël. teg ko ci benn case boo xam ne du moom est-ce que tamit benn instant aussi kii di Diary saw nekkul na rek dafa am benn ñu koy waxee sax cri euh, de de de de de un secours boo xam ne def na ko par rapport ak sénégalais yi nga xam ne mun nañoo wax ne on n'est pas aussi euh, flexible aussi euh, par rapport ak tamit suñu relation avec les autres. à chaque fois dañoo bëgg a dicter les gens comment se comporter ou bien naka leen war a defee aussi seen àddina aussi. bon bu nekkee moom impression boobu la ci am bu nekkee laa wax bu nekkee impression boobu la ci am dafa juum parce que yaakaar naa ni sénégalais dañoo xëy suba. mosuñu lijjanti kan mooy jaari sow ah nañ foo wax dëgg. Mhm. dañu xamoon ni am na koo xamante ni sénégalaise la. dafa réer. mais après si lañ doogay intéressé wu ci profile ku réer. ñu ni ñu kooku de bokk na ci sénégalais yi nga xamante ni ñoo dàq jàng. ci saa si ñu juñ ko tubaab bi. ñu ñëpp indi ñëw. ñu ñëpp jaaxle ba ci Paris boobu noonu am ay sénégalais yu bàyyi seen liggéey bàyyi seen activité. dem organiser marche. Mm-hmm. ñenn ñi dem ci ay plateau de télévisé parce que dañ bëggoon télévision parce que dañu bëggoon fësal li nga xamante ni moom mooy disparition wu Diary Sow mm-hmm. donc jaari Sow sénégalais yi demuñu di lijjanti vie privée mm-hmm. mais ba ñu lijjantee di seet di seet di seet ñii di jël seen photo profil di changé ñii di fexe lu ñu mën mm-hmm. pour jéem ko retrouver bañ ko gisee nag wala bañ jotee yenn lettres yeeg yenn kii mais yoon nag ki nga xamante ni inquiété woon na yaakaaroon lii ci yow bu déggee ni nga def mu am déception am déception certes mais on a trop jugé aussi à euh, la fi je la pense je pense pas parce que man dégguma ay jugement len laa ci dégg mooy. ay ay ay wax wax la yoo xamante ni bon entre Sénégal familiarité la. non mais mais des paroles assez violentes par. ah bon peut-être am na man man du ma ni amul mais damay jàpp rek que ni en tout cas grande majorité bi nga xamante ni dañuy jugoon dañu jugoon parce que seen benn rek seen benn doom seen benn jarbaat moom moo réer te gisuñu ko ñu jaaxle ci moom mais yoon la nag nga réer nit ñi jaaxle ñu la gisee tamit dégg ni yow nekkate réeroo yaa nëbboon sa bopp <laughs> yoon la nit ñi am déception bu ñu amee déception nag am na pamaxta peut-être dina ko exprimer ci ci benn benn façon boo xamante ni yow doo ko exprimer keneen ak keneen mais nañ ko comprendre que déception la tey jii demal sa kër nga làqoot seen waa kër dañ la dinañ la wër 15 jours tiit ci yow mais bu ñu xamee ne yow yaa dencoon sa bopp sa papa bis bu mu sa bopp fenn la dafay exprimer li nga xamante ni moom mooy mooy jugement non mais déception kese lay exprimer parce que yaakaaroon na ni sax fii nga nekk yow teewoo fa sa bopp dañu fa teewoon il s'est inquiété toog benn période boo xamante ni gisul la lekkatul naanatul mais yoon la mu am déception boobu je pense que nii moom peut-être dafa comprendre wul yi noonu mais je euh, amul amul amul amul lu ko en tout cas nit moom euh, Ndiaye. Mhm. boo bañee ñuy sujeel bul judd. <laughs> surtout bul doon sénégalais aussi euh, Pape Matar ñu wax autre chose cette fois-ci pour parler euh, de Y'en a marre wax si wàllum kilifa ak yi nga xam ne mooy euh, Simon gannaaw tolof tolof.